dalleen ak jàmm ci la yéen kay xëy gën tey ci Rewmi FM Rewmi ko tey jën juróomeel bu forum bi ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu jàmm karange ni ki démb lañ ko doon amal ci centre international de conférence ba ñu duppee Abdou Diouf nekk ca doon bu jàmm ñaajo waaye ni ki démb ko tey jën bu Sénégal Macky Sall ak bu Gambie Adama Barrow dong ñooy nekkoon na njiitu réew yi nga xam ne yeneen njiitu ci Afrique lan moo ko waral dëgg-dëgg njiitu bu Sénégal ñu gën

bokkul le quotidien yéen kay ne président Macky Sall kii ci boppam teewe ne niki démb forum mel waaye forum bi lam ca sàkku dëgg rek rek mooy mbootaayu xel ñu war a seen doxalin su su ay yéen ne forum international bi ñu jagleen wàllu jàmm ak karange niki démb li tax dëgg-dëgg nag njiitu réew yu bëree bëri ci réew yu Afrique du mooyu ko du lenn lu may kenn ku nekk daanaka sa bopp nga gëm donte ne sax lu jëm ci unité africaine loo xam ne bi nga xam ne bi moom la président Macky jël ba yëkkati kii di Khalifa Sall ci bopp mairie bu Ndakaaru ngir décret bi ni mel ñu mën koo neenal jamono joojule Rewmi Quotidien Khalifa Sall mi fi nekkoon maire bu Ndakaaru niki démb association internationale bu maire yu francophone tabbu ko mu nekk seen membre d'honneur maître Mame Adama Gueye moom wii di nemmeeku ñi xam ne ay candidat lañ ci présidentielle yu 2019 gannaaw ba mu jàppee bu mu delloo gannaaw Madior Fall Ismaïla Madior Fall ci yéen kaay bi ne réewu Sénégal xalaatul li mel fi ñu toll ki xalaat ne réewu Sénégal ci boppam dellu gannaaw dëgg-dëgg la def muy Bougane Gueye Dany di njiital mu ma gëm sa bopp gannaaw bataaxal bi mu jébbal njiitu réewu Sénégal Bougane Gueye Dany ne ëllëg du añ du reer waaye lu mës a sóoraale la kuy sóore dëgg-dëgg kenn mënu koo ci parti démocrate sénégalais mooy maître Madické Niang mi fi nekkoon njiital groupe parlementaire liberté ne bi yoon may na ko ba mu génn pratique sénégalais yi record yi kay ni ligue des champions tey jëlee ñeenteelu bëccëg gi diggante Barça doon ak Inter Naples tamit dana laaleeg waa Paris Saint-Germain yéen kay bi ne jongante boobule danañ ci nemmeeku taxawaay doomu Sénégal bii di Kalidou Koulibaly Vox Populi ak Libération yéen kay xëy ci soxna si nga xam ne si mu doon borom këram ni ki ci diwaan bu Maris borom këram ci boom daanaka fi ñu toll yaramam sutante na lool soxna si nga xam ne si moo a taal borom këram boobu la xam ne bii borom këram nee na woon da ko koy takkal te ñaareel boobu la nekkutoon lenn lu may borom këram jooju lay oto la ko doon a